baax nga loo mën a yëpp baax loo wax lépp baax xam naa la dafa am lu mu dul réer leer yooyu la mënul réer mukk leer yooyu ci bu dul réer mukk sallallahu alayhi wa sallam la woykat yi doon woy seen Babacar cee jamono di ko wax ku la dégg te masulaa gis di koy way si jabaka ku la dégg te masulaa gis bu la ne jàpp xam ni yaay fi yor leeri Maodo si seedeel looloo Seydina Aboubacar gi bay jekk bay jekkaale bu jekkul woo si ku loroy jekka di daana seedeel loolo Seydi Aboubacar daana seedeel loolo li tàmbale Siin Saalum jàpp ñoo jëm xaay sangoo borom leer daana seedeel loolo leer yooyu noonu mu fisi ma ne leer yonent bi nan ku koy mu jàkk moo tax ma ne ku yàlla nattoowul xol bu gàntu lu dul xéewale xol bu ànd ba nga d'accord ci yeneen ci day maa keneen raw hm? nga tabaraka la sunu xaaliqiina te dama wax ni sagal nga barab bii te sag bi dafa dem ba làmb Sénégal ma wax ne li may mas di wax dina am te du ma teel di wax ba bañ koy am wala ñu koy bañ a am mais barab yi la ko ko tuddee sagam fii la ñu mën a tuddee boulevard général de Gaulle hmm? avenue Lamine Gueye amul amul sagam ñoom sandi ñiiri dañu mën a tuddee ay rue amul ah. rue Massa ah. angle fédéral bu amu fu wax mais kon war nañoo mën a am ñun barab bi ñu tuddee ko barabu Chérif Ibrahima Haydara am dee sagal na barab bi taaral na barab bi ma wax léegi ni yonent bi sama loo yëngoog loo dajale lew na ko waaye da nga jël lépp verse ko ci compte suñu xaj moom a dàqal yëpp nag loolu nga naa fi sa papa mantan waaw mantan yi seen man dama mu ngi fi ba tey mu ngi fi. waaw ah, moom la ma sabay wax. mu nga mu nga mu nga gànjool. man nettali ba muy nettali. nee naa gémmiñu sama nopp. léegi laa ko nettali. sa papa ba mu demee Thiawane. te indi naa confirmation yi wane ni surtout yaram tuuti. Oustaz Mbaye Ka laa jëkk a tudd. moo ko seede te xaritam la moo ngeen am man tudd naa fi waa kaw na ko maam alal bi Adama kan dee wax ñoo àndoon ak Kabir kan yéega laa ko fi nangootul toog ca kaw mu toog ci suuf la nga làmb sa pof di ko jox sax ñeme ko ci mu ne nii déedéet ah man kay maa war a jox ndax xam fi nga bokk tax ma ne ñu jóge fa dem soo sa maam di doomu alxaaji ahmad dem radiyallahu anhu ma sëriñ si ahmad tijaani ca lal bara toogoon mu toog ci suuf ñooñu xam looloo tax ma wax fii it ni waa Sokone nga xam ne xew sa ñoom maam ahmad dem bëgg wëlërante yonent bi kat ñu jël seen deret dénk ko sa papa mu am la ci ñooñu xam nañu la de te xam nañu fa nga bokk ma ñu nag ànd yooyu yëpp taxul papaam ni bu ma kenn wax ak fi yooyu jóge yëpp ni shérif la lu dul ni si Babacar Si moo moom nangul ni ma Chérif o nettiɗo lowlo mantani nettiri ni bamo deme teyawoñ jeeki escalier ɗon ko sindaw kam ɗon waaj def koron ko jox ko holni ko li ngay leer lu dëgg bu ping la yonte bi sama te jotu ko wax bara kon nag yal na yàlla antuloo sunuy xol ba ñu bañ ñoo nattoo bu gàntu sëñ Cheikh moo daan wax hmm. ku song hmm. hmm. sa xol yëg ni kenn mere woo kenn añaane woo kenn nee na am nga li jàpp loo ñaan mënoo loolu nee ku song sa xol yëg ni kenn añaane woo kenn merewoo kenn am nga liggéey bu boo ñaan muy noonu te fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin ñett yooyu yëpp dajale ci yow yow taloo mere kenn taloo ko taloo añaane kenn taloo bañ kenn amoo jotam hmm? ñett yooyu am amoo ci benn yow li nga am rek mooy xinte woo li ngay xinte woo réussir ba noppi dajale lépp yonent bi di sa maam nga verse ko ci compte suñu xajma waaw day na may fekk radiyallahu taala kon fa tabarakallah sunu xaaliqiina sant yàlla rek mën woonu war su ko defee nag la sëriñ Babacar Si daan wax radiyallahu taala ni am ko te xamoo ko nee na ñàkk ko te xam koo ko gën waaw dama koy wax rek pour laa biir ci li yàlla dogal ci ñun ñu am ko yàlla baaxe na ñu am ko moom moom ci baaxam la ñu ko mayee ñu am ko sëñ Babacar daan wax ne nag am ko te xamoo ko mu ne ñàkk ko te xam koo ko gën ndax boo ko ñàkkee te xam ko dana la jaral lu ne ci nga am ko te boo ko amee it ci teg sa bakkan ba dootoo ko ñàkk waaye boo ko amee te xamoo ko mën nga koo sàgg na ba ñàkk ko jóge Chérif jóge fii ci kër gii. romb bu boobu maa ngi dëkk avocat. romb fa jaar ci kër gu nuyu góor gi. wallaay wallaay dëgg la. continue ma kii Chérif pire. wallaay ndeysaan. a am na lu ma xeeñ ci moom Chérif. waaw. jaay <laughs> ne ma Chérif a nii. mu ne ko mu ne ma dafa am lu ma wax moom góor gi ci boppam mooy bi mu feebaree mu ngi nelevé fii ci amukaay kër sama rafet Ibrahima yal yàlla bool leen doon yi rek man fii fii laa dëkkoon parce que ñi xam na ci dara fii laa toxoon nag ñëw amoo siis ngi góor gi feebaree na benn fajar ni mu yónnee dinaa ko wuyu ma ñëw yëpp lu mu ne ma ñëw nga ma ne ko mu ne ma toogal ma toog mu ni ma su ma bañul woon gaawtu dama naan sëñ Babacar da koy jël si pour yóbbu ndax mu ne ma moom laa fanaan ba bëgg set mu ne ma nii ma la koy nettalee ba tey maa ngi janoog moom wallaay bu ma ko te booba bët yi gisatul te fan yooyu yëpp ci gannaaw waxul de mu ne ma bi ma nee tàllalal ma ñaanal la bi ma tàllalee ba ma ñaanal na mu doon ëffee maa ngi yëg ba tey ni ma ngelaw doon dugg mu ne nag waaye nag bul gaawtu ni ma dafa bëggoon Serigne Cheikh la mu ne ma dama la bëgg jàngal nu ñuy ànd ak Serigne mu di ma ko wax ma di ko déglu mu ma du ku ñuy merle bu ko merle waaw bu ko merle de du ku ñuy merle mu ne ma ndax moo yilif meram waaw mu ne ma nag koo xam ni fexe na ba yilif meram yow bu fekkee ne sa mer moo la yilif boo ko merlee rek li nga daanu ci bu jëkk bàngoo mu ne ma fi ko ñaareel mooy mën na dëkk mën lu rëy ni ko ces di ko yëkkati nga yërëg sa fexeel di ko jàppale pour mu jóg hmm. nee na nga yëkkati mu yëkkati mu ne ko yalbaan ni say loxo wan la ginnaaw dootu la wax dara hmm. mu hmm? ne bi ko ñetteel mooy. du def yi fi nit ñu la ko ko doon mu fi nit waaw ndax nitu yàlla la. mu ma jëli ma. est xam nga yàlla reyul bàyyu hmm? kenn ma est-ce xam nga yàlla reyul bàyyu ne ko loolu mooy lan mu ne ma yàlla rey na sama bàyyi doom ju baax du ko wax yàlla reyul bàyyu kenn mu ma xam nga lu tax ma wax la ko ma ne ko mun ma yaay bàyyi moo tax yow ah. doom joo gis mu taxaw taxawaayu koy juróom la taxaw bàyyam kon nee na bu mu ni bàyyi yàlla rey na sama bàyyi ndax yaay bàyyi mu ngi noonu sérif xadis la yéen ci wax ni doom mooy secret bàyyi ba ndax nee na baatu doomama boobu wolof di wax diw de doomama nee na question la ak laaj la mooy doomooma bàyyi ñaan neel ah kay moom la. baatu doomama. mooy doomooma ah kay moom nga. du dëgg. mu ne ma li tax yaay moom mu ne ma ndey ak baay ñoo jur doom waaye dooma leen yóbbu. doomu leen yónni ca xay bo xay bu mu ngi ko daan firee meññ. Mm. meññ bu shahaada ñu ngi ko daan firee joon moo tax nee na wolof nañu suñu joon li tey. Mm. mu ni ndey bàyyam ñoo jur doom waaye dooma leen yónni doom moo ni bàyyam ca xay yaag sama yaay jiitu leen ma àtte ngeen annoncé ne maa ngi ñëw yow bàyyi na ku ma yàkkamtee gis na la xool su ko ñëwee rek di yow. mu ni yaay nag. yaay waaw. mu ni wax bu àggul la moom la doom wax ndeyam mooy yaay muñ bul yàq liggéey yaay muñ de bul yàqal liggéey ba foofu moo tax oustaz ndeyka yàlla na ko yàlla doon lii leer daan naa wax ni ku dem n'importe où takk fa n'importe quelle femme muse yeeg yow n'importe comment jural la n'importe boobu di waxaat ko ko. day béykat béykat bibliothèque ku dem n'importe où. nee takk fa n'importe quelle femme. musée yeeg yow n'importe comment. jural la n'importe qui appropriada. tuuti. waaw. loola nag mu kon doom ndakati mooy avocat baayam di docteuru ndeyam mu ni kon doom ndakati mooy avocat wu baayam di docteuru ndeyam mu ni ma li wax ni ndey ak baay ñoo jur doom waaye dooma leen yónnee xam nga ko ma ko seetloo yëpp ci jabar bi de hmm? waaw ma ne ko déedéet mu ne ma ci mango bi nga lekk mu neex muy benn doomu mango nga màcc ko mu neex hmm. nga bëgg mu dellu si nga jël xoox ba ji ko balaa xoox bu doom baa ñëw dana yebal ñaari xoox mooy ndey ak baay bu doom nga ci yoon wi ñëw <laughs> doom a ngi ñëw waaye na nag ci ngay dégg ne naka ci doom am na nu mu war a dikkee moom it na mu war a dikkee mooy màngo ba benn la woon waaye bi muy ñëw ñëwul moom kenn te fa mu saxe ñooñu ñëpp mën nañ caa xéwlu nee na kon doom ju baax day fexe ba bokk ci ñuy dundal réewam bañ a bokk ci ñuy dundee réewam yow nag dundee wóor bañ nga ko ba doo nangu doo laaj addiye da ngay joxe addiye da ngay laajalaate addiye di ko joxe bañ nga ko yit ba lépp loo xam ni ñëw na sax di xéewal tukkee fa yàlla ñëw bala ngaa am jàmm séddale wat lépp mu jeex hmm? pour mën a nooy yi mën a féex bala nga am jàmm nekk nga séddale lépp mu jeex nii nga maye tabarakallah sunu xarit te it dajale woo dara it jubale ko ci sa bopp bañ nga ko ba bi Cheikh Hadji Abdoul Aziz radiyallahu anhu demee danga na ma ko jàppoon ni sama baay yu biir biti def naa noonu Thierno Bachir. Mhm. mooy mu nangul la ko. Mhm. na la ko seen Hadj Abdoulaye la nangul la ko. yow loo woote bu jub si bopp lan la. dara. Hmm? dara. kon fa tabaraka lastoru xaaliqiina boo dajalee li nga dajale organiser li nga organiser dama bëgg a wax ni am nañu chance. Mhm. xam nga tànn ko mel nii wëlëranteeg moom. Hmm. pour ànd ak moom ca yàlla. Hmm. looluy sëriñ. si Babacar nag daan na am lu mu daan wax te mucc nga ci. daan na wax ni sëriñ ñaari façon la. Hmm. si Babacar Seck ko daan wax. ci waxi wala fam yooyu. naan dafa am sëriñu. <coughs> bu nuur for mbëtt ak mbëtt for gunuur. suñ Babacar moo daan wax loolu pour di jàngal ñi mu am ki ñu am kan la daan wax ni képp ku ni balaa maa dem Tiwaawan am lu ma yóbbul sëñ Babacar si jox ko ko yàlla boo ko amati ko ñu ma seeni poche seeni xol lañ ma dénk dénkuñu ma seen i poche seen i xol lañ ma dénk ku ni balaa maa dem amul ma yóbbul suñu Babacar yàlla boo ko amati. yaakaar hmm? mukk addiyee taalib déedéet sëñ yàlla ko yàlla dolli leer nee na ma bu nit ñi masaan bëri ñi ko daan nuyu sax di ko ziar sono du masaan ñëw ab Saliou nee na maa daan taxaw ci ginnaaw nee na léeg-léeg ñu jox ko kenn ñëw jox ko teel a jox ko mu jox ma nee na la di tey bari bari léeg-léeg ni ma jaaxal ñu jox ko mu jox ma ni ma ber ko ber ko. nee na bu ñëpp demee mu ne ma ana yama la berloo ma indi ëmb jox ko mu ne ma génne sarax lépp. waaw ñun ñëpp defe ne sërif xaalis bi la soxla ba mu paas ca fii ca biir géew ba la koy séddale loolu maa ci teg sama bët sërif bii. xam nga sërif conférence la ko def. waaw màkk yi def na ko lu mel noonu. man ba ma génne dama ne ah waa ji di wóolatuma xaalisam te waa ji pikin daan bëri di baatar rek ma génne dama ne wóolatuma waa ji xaalisam ndax ni ko sërif ber yàlla xam na ko. xaalis sërif xaalis génn wu fi moom moo fi fitu xaalis moom sëriñ moom moo génn xaalis moo tax mais xaalis yàqu ko de suñu cheikh dafa noonu wutin pour am bu naree yàq jikko jaratu ko wutin pour am loo terloo sëriñ cheikh na la bu naree yàq jikko jaratu ko tànnal ñàkk yóbbaale seen liimaan ngi doon a soxla nee ku yóbbaale sa liimaan ngenoonoo songor malaat mu la tiim wet la jeex na moom nag noonu la mel kon sëñ Babacar noonu na sëriñu mbëtt mu for gunuur ak gunóor bu for mbëtt mm-hmm. ne ñaari façon yi rek mm-hmm. mu ne gunóor bu foree mbëtt mm-hmm. am na xéewal ndax mbëtt ëpp lu ko xamul du mu koy def hmm? gunóor bu foree mbëtt keroog am na xéewal sëñ Babacar nañu na xamul lu muy def mbëtt ndax mbëtt ëpp na ko xéewal boobu ëpp na ko nee na fii lu koy te bon mooy mbëtt mu far gunóor nee na dara du tuy mujj lu dul kajum sax mu ne mu ne kajum a tey mujj kajum yonent bi alayhi salaatu wa salaam am ku ko laaj ko dama bëgg nga digal ma loo xam ne yàlla daf may bëgg nit ñi bëgg ma bu mu bari nag ndax mënuma jàpp lu bari ndax loolu mën na nekk mën ne ko mën na nekk mu ne ko nu may def ba am loolu mu ne ko loo am bokk la nit ñi du ñu am nga bokkoog ñoom Cheikh moom noonu la mel ci du chantage yu kenn la ma sama waajur waxoon ci seen Cheikh ni ma xam nga ni Cheikh woowul kenn ku ànd ak moom yako ko dal ma woote wul ku ànd ak moom yaa ko dal bu geesu gis ngi ci yoon rek nga topp ko mooy moom Chérif bu wootoon pour boppam nga xam waaye wootewul moo tax na sama waajur ni ma nag bokk na ci li ma lay jàngal da nga doo da nga bëgg a doon lu jafee nekk mooy taalibe nga bëgg a doon ma ko amul ma la taalibe yombul a waaye nag bu la yàlla dimbalee ba nga doon li jafee doon te mooy doon taalibe nee na am na bu gën a jafe boobu bu lay xaar ma ne ko mooy ban mu ne ma am sëriñ yombul moom te moo gën a jafe doon di taalibe am sëriñ moo gën a jafe doon di taalibe kii nag na sëriñ sëkk. xëy moom it. ñi ànd moom ñëpp. ci lii muy woote. ku ne xam nga ni. shérif intérêt boppam taxul la xëcc ci jëme ci moom déedéet dafa am fu ngeen bëgg fu mu bëgg ngeen ànd jëm fa te mooy la sëriñ Cheikh wax ne yonent bi jaanam wàcce ba ko yàlla yónnee daal ànd naag ña nangu ñi leen jóg leen kotti kotti yollu yollu ba ca yàlla ñi leen yàlla ngi nii ña lànk tëdd fa ñu tëdd duñ fa jóg mu ne yàlla may ma nga jóg ànd ak yàlla kottu kottu yoonu yoon ba ca ñan la xam yàlla ngi nii jeex na. ma la wax la. ah ah incha allah. Mhm. ok su ko defee loolu foofu ñu xam ko ngir xam li ñu am mu doon. Mhm. mu ne ma nag waaye bu la yàlla dimbalee nga doon li jafee nekk. te mooy doon taalibe yàlla yemu fa ak yow mu may la chance su nga am sëriñ kii ku ko am am nga ko boo dërënteel dem ci yàlla mooy sëriñ mu ne nag bu la yàlla mayee ñaar yu jafe yooyu ne nee nag dese na beneen bu gën a jafe yooyu gën koo métti li mooy ban mooy mooy mën a ame ñàkk mën a ame mën na yàqu amee ñàkk mën a amee. nee mhm. dina yàqu amee. Mhm. kon Chérif. Mhm. ñu ngi ñaan daal yàlla nañ la am. nga am nu. yàlla boole nu amee. ci dara Yonent bi alayhi salaatu wasalaam. li may tëjee nag. mooy. dama bëgg ñu yóbbaale ndax dafa lu ma seetlul sama bopp te yaakaar naa ni loolu la mooy dafa mel ni waxtu yi ñu toll sunu boroom subhanahu wa taala digganteem ak jaamam ñu neexatu moom loolu lay niru te yàlla du tooñ wax na ko ci xadisul xudsi inni xaramtu zulma ala nafsi li may sañe ko moom mën lépp araamal naa tooñ ci sama bopp man yàlla du ma tooñ mukk kon digganteem ak jaama yi su ma leen ne loolu neexul ku tooñ kon d'accord nañu ni ñoo tooñ se Cheikh nee na yàlla nangu na def échec ñëw sukk ci kanamam ni ko maa mati def maa def échec daal nee na li muy bañ mooy def échec bu noppi nag bëgg rëy bi ñu kon ma wax ni ci biir loolu it teewul moom yàlla waxtu wii ñu toll nga xam ne digganteem ak jaamam yi mel ne ni neexatul moom de jubóo rek la bëgg jubóo rek la bëgg jubóo googu bëgg na ci jaam yi moo ko tax a soxla fii ñu toll ba tey médiateur bu ko defee la jaam yi ko soxla fii mu Mhm. te médiateur boobu. bu bu bu bu ku nekk ne du du man rek def musiba. mu ngi saafara woo ci kenn ku ci nekk ni jàppal ni yaay yaay médiateur bi ko war a defar rek sa diggante moom yow foofu la ñu toll. du dëgg kenn ku ne jàppal ni yaay médiateur. bi ko war a defaree sa diggante moom ndax moom bëgg na jublu. Oui, jumtukaay ya dajale na pour mën ko defere sa diggante ak moom bu jubóog moom dama ni moo tax shérif tant tant bu bii pour buñ fi ñëwee amee fi jumtukaay yooyu pour ku dem mën na am outil yoo xam ne duñ ko liggéeyee sa diggante sa borom mën a jubóog wallaahi lu looloo tax nga tànn. bu baax bëgg jaam yi jubóog seen borom rek. te defe naa ne ku fi ñëw di nga amee jumtukaay yooyu la nga yóbbuwaale. kon Chérif yal na la yàlla nangu. te yàlla bu ci daraja yonent xaw ma kan de yow de xadara ba soxla na la. pire nag yii mooy pexe yu ñuy def pour jubale yàlla jaamam yi. ngay tànk loolu rek lañ lay wooye du leneen du leneen sànq bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy wasifa la ilaha illallah may xalaat ni xaw ma ñan de waaye ñii tijaan yii de xaw ma ku ñu saful waaye saf nañu yonent bi saf la yonent bi de. dëgg la mooy seetaan ñoo xam ne suba ak ngoon bu jot. allahumma salli ala sayyidina muhammadin ba noppi jëf ak ak yéene boo xam ne. xaw ma ku ngeen saful waaye saf ngeen yonent bi. waaw am déet. am déet. kay. kon it yow mii nga xam ne tamit at mu jot nga tànt fi tànt bu rëy bii mbooloo bàbbee ko fu ne. tabarakallahu di walwal yi ñëw ida jaa nasrullahi walfatxu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan moo la tax di tànt waaye ida ma jaa nasrullahi nag jaa waaw jaa kat te yaa ko indi def nga yitte ba ñoo dil na ko ba indi ko fii fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiina yàlla na yàlla nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi mu may tamit xool bu antu ba ñuy ñëw di wuyu si yàlla nañu nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu te yàlla na nga ko yàgg taxawee ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah ngeen baal nag wax ji sakkat na bari na waaye yéene rek yéene rek yéene rek kon ku am lu jafe nag sëñ Babacar noonu da ngay jafe maam Abdou teg ca lan te de jëfe waaw loolu maam Abdou ko jëfe sëñ Babacar moo naan lu jafe da ngay jafe noonu na am lu jafe da jafe ma ne te de jëfe nag waaw kon nag den jëfe te mooy na lu ñëw rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yal na yàlla subhanahu wa taala nangu coow yi ji wax yeeg yëpp moom amul jotu geesu sañu ko sax avancé rek avancé rek mais amul jotu geesu avancé rek ci kattanu yàlla ak mbaaxam ñu avancé rek xam nga sunu borom lu mu soxla résultat bu ñu ko indi wallaay waaw wallaay résultat la sëñ Abdoul Aziz Al Amin waxoon radiyallahu taala anhu mhm. ni bu ma kenn indileeti projet projet yi doy na léegi daal résultat laa soxla def naa lii yow nag fa tabarakallahu sa bos nëbbuwul feeñ yàlla nañ ko bokk jeg liggéey njoor yàlla na ci yàlla euh, def tawfiq ba ñuy jóge gox yu ne yàlla indi leen ak jàmm ak seen jàmm delluwaat ak jàmm ci dara jooju bi alayhi salaatu wasalaam yàlla boole nu nangul ñu waxaat la rek wax ju mujj ji mooy jazakumullahu anna xayran amiin Chérif jazakumullahu anna xayran amiin Serigne Cheikh nee na loo ca tegati cat wasalaamualeykum wa rahmatullah amiin amiin amiin